salaamaaleykum wa Ovision vision ngi leen nuyu di la ziar maa Mohamed Sissé, bergerie Baraka De di dalal ak jàmm suñu bon vous savez ñun c'est pas la première fois qu'on participe donc euh, en tout cas c'est une fierté aussi hein. donc euh, waaw ñu indi la y a y a trois ans si ginnaw ñu un euh, record 120 ak bâtonnier autour Garo trois ans après ñu indi leen ay petit fils dont deux yoo xam ne surclassé nañ benn bi año moo jël deuxième benn bi Espoir bi moo jël première. donc voilà mi ngi noonu quoi waaw macha allah bon content di ci am contentement parce que day day day gëna tax suñu ñu mëna remarquer suñu liggéey parce que c'est pas évident nga ñëw tek fi 120 té indi wo lo xamné relève la donc c'est toujours un problème té loolu lañu gëna constater a si si si si si si si si si élevage donc nak fierté la bu mak di si sante yalla di si gëreum tamit wa équipe Baraka yépp quoi. waaw comme d'habitude rek <laughs> ñi ngi leen jox dig dajé yeneen sortie ak yeneen sujet waaw ak euh, yeneen yeneen yeneen horizon daal <laughs> comme d'habitude incha allah waaw macha allah neex na jaar na yoon waaw métti woon na nag mais bon xam nga man xaw naa fi nekk au début xam naa nu mu demee métti na mais sant yàlla jaar na yoon waaw wax dëgg fa yàlla on est satisfait waaw à waaw waaw ça important tey lañ gën ñëw nag parce que euh, Adam bi comme ni ma ko waxee la dernière fois. bon dañu dañu tous buntu yi donc du coup nous xam et puis ku ça fait plaisir de voir d'autres personnes yo xamné nekkun ci élevage mais ñu ngi ci commencer intéressé wu club bi jëw nañ massivement nak à vrai dire massivement chaque jour quand bo xolé ni rek nit yi bare c'est quelque chose quoi amna lo xamné amu fi won mais mi ngi commencé voilà mi ngi commencé am quoi à vrai dire communication bi jaar na yon et puis voilà gaay gaay dégg nañ ko bu baax macha allah. waaw ngi nuyu wa au vision di groupe monde euh, élevage yëpp di leen jox dig dajé yeneen sorti ak bergerie Baraka jaajëf.